ak Ndongo Lo école de lutte sàkku xam-xam bu père Birahim da Ndiaye Mbaye Yékini le promoteur de l'avenir moo ñu woow fii ci stadium Ilimanel fii ci stadium Iba Mar Diop ay waay tàmm laago la tey jii di samedi le 3 juin 2021 Leewtoo TV ngeen di seetaan lamb kese lamb dong làmb képp maa la ko wax cay mbayang lum Pape Thialis Faye borom la 8 août Tapha Tine Boy Niang kenn du yow waaw waaw yéen ñi ko bëgg seetaan en PPV gaaw leen jënd seen page ci 3W lambdiaspora point com waaw waaw Ndongo Lo léegi wante dalul Cheikh Tidiane ngi dox ci kaw attention Ndongo dooran na waaw waaw Ndongo Lo Cheikh Ndongo Lo moo féetee ñaar ña nga lewaatoo attention mépp na wante demut Ndongo mépp léegi wante demul lewaatoo baa ngay gaaw waaw waaw Tidiane ngi dox ci kawam ndongo ngi dóor ndongo ngi dóor mais yi dalul Ndongo Lo Cheikh Tidiane Niang attention Ndongo dóor na gauche waaw waaw Cheikh Kébé Cheikh Tidiane Ahmed Tidiane Kébé yaay ndaanaan waaw waaw attention Ndongo dafa mel ni ndongo dafa mel ni xeex la andi ci combat bi Ndongo Lo dafa mel ni xeex la andi waaye Cheikh Tidiane Niass champion d'Afrique Cheikh Tidiane Niass champion de Sénégal ah Cheikh Tidiane Niass bëre simple lum ci deful amul bëre cinq combats cinq victoire moom Cheikh Tidiane Niass déggagul muñal la nink nanka de écrit dóor dóoraat wante Ndongo Lo 17 combats 10 victoires kenn du Ndongo Lo le combat combat des espoirs le combat des ndaama ñaari ndaama lañu Ndongo Lo ngi dóor Cheikh Tidiane ngi moytu Cheikh Tidiane ngi dem Cheikh Tidiane mel na ni day dem aca Cheikh Tidiane dóor na Cheikh Tidiane dóoraat na attention oh daw nañ jàppante daw nañu jàppante Cheikh Tidiane jàpp na waaw waaw Cheikh Tidiane daan na Ndongo Lo Cheikh Tidiane ñaar daan na Ndongo Lo oh oh Cheikh Tidiane ñaar daan na Ndongo Lo waaw waaw samp yoo la sixième combat six victoire la kooku mooy Cheikh Tidiane ñaar la nink nanka daan na Ndongo jël bu amul benn farante